asalaamaaleykum waa Sénégal asalaamaaleykum waa àddina maa ngi nuyu ñëpp di gërëm ñépp di sant ñëpp di baalu ak ñépp di baal ñëpp di jël nuyoo bi nag di ko teg sama loxo papa muy Wally Ballago Seck li nga xam ne tey bu ma indiwaat ndax ku ne xamoon na ni découragé woon naa te yéen li may wax xaw ngeen ci xam ba as tuut parce que ku gis nay njaay bii. gisoon nday jaay bee nga xam ne petit changement am na la mu ma soutenir ma tax pare pour jàppale ma ndax aar rek laa koy sant bu baax sam papa ji ko ñaanal gudd fan ak wér gu yaram ko bàyyi yàlla nag mu fayal ma ko te saxal suñu ànd bi nag di ko teg ci loxo papa Amady ndax na foo dem am na njiit ñëpp nangul ko njiitam ndax ku ne xam na mook sama diggante mook Papa Wally kon tey moom it jàpp na ci ndax daf may conseillé di ma xamal àddina indiwaat ma te gis ngeen ko ama di moom ay njëkk xajal kaw seen dooleel ma Ramdaan waxaale wu ma leen orchestre bi sam papa yi fa nekk ku ci mën ni bay si Ndiaye Fallou ñoom Papa Wally ñoom Papa Cheikh Anta ñëpp daal ku leen juum mais ñoom ñëpp kenn xataluma ci ndax tey nit mën naa nangu sax ngay bañ ndax aar ku ne gis na nu mu demee mais ma xam ne foofu famille la ndax ku fa mës a ñëw yaatal nañ leen ma baax sama papa yi di leen gërëm di leen xamal ne nag fii ma nekk sax à cause de barkeem la ay moo tax ma ñëw hôtel xaw ma ay hôtel xam ngeen ma yéen waa TikTok sama waa TikTok samay fans musuma nekk ay hôtel nii di mu la première fois kuy waxal yàlla lu weesul sama tournée. laa nekk hôtel mais man duma tere la fenn sama aar suñu kër mais nag loo gis rek dañuy waxtaan ndax à cause de Faramareen gi ci barkeem ay nitam yu baax samay papa samay mama ñoo tax ma nekk fii pour ñu ne ma naa reposer wu une semaine loolu kese la mendul dara yéen nag samay fan si yéen a tax ma wax leen kàddu yi parce que gis ko lu bëgg dafa jar ba daw ba dee ngir ñi la bañ te damay seetaan samay commentaire ngeen sonn ci sama jëm mu leer na ni joxuma la ngeen lekk joxuma la ngeen naan te ku sañoon kenn koo bëgg da ngay dégg ci moom ay ngëneel te ngëneel gi ma am nag ma leen koy yéen di leen ko jox pour seen xel dal ci man te xam ne bànneex bi ngeen xam mu yëngal xamee ko ci yëngal ba bugg ko day gën a yëngal banish faramarin ba mu neex ndax doyal leen tam mani sax doyalu ma mais dama amul pexe far sam papa jël ma taf ma ci wetam loolu kese la may gërëm sama maman maa ko daf maa woo conseillé ma def ma ni doomam xaw ma ko sax ndax yàlla baale tax ma xam ko dama ko daan dégg rek mosuma ko gis lu dul appel ma di ko sant bu baax mu may ma teraanga ju bari nag ndax nit ku gërëmul yàlla rek ku gërëmul nit rek doo gërëm yàlla dama koy gërëm bu baax sama yaay jooju yàlla guddal fanam yokk kàttanam ak mën-mënam di ko bàyyi ak yàlla yàlla fayal ma ko loolu kese la woon may du dara